ndigal mu naan suuf. ah da ma suuf mais parce que yow fi nga toog di di di di di di yow amul loo ko yanul fii. yan nga ko fi lu ne. temps yooyu man comme comme d'habitude rek. du yow yàgg nga fee. xaañ ay Sonko. yow yàgg nga fee xaañ ay nit. Sonko mii yàgg ngaa doon bal perdu ci moom mais yow yàgg naa toog fii ngay xaañ samay nit. ma nekk ci euh, euh, euh, lu garaaw. ma nekk fi di di di di di samay samay pansement mm. ak samay mouchoir di fomp mm. naan mënoon lu ma ko ndax ñëpp xam nañ léegi mm. moo tax actuellement je suis à l'aise gën suñ suñu ñaar ñaar yi ñu commencé suñu tête à yi ñu commencé man daf ma soulagé parce que ñu bëri dañ dañ ma ne am am na keroog ku ma ne benn kilifa bu mag boo xam ne da nga ko xaañ fii mu ni ma mu woo ma na ma mais Aïssatou yow télé bi yaa ko moom wala moomoo ko ma ne ko comme nandita ma ne ko lan lan nga bëgg a wax xamoo naa ko ne maa ko moom hmm. mais dama ko ne lan nga bëgg a wax foofu hmm. mu ne mais Doudou Coulibaly mi nga bàyyi xaw ma day suus xaw ma day mbolli mbolli mu ñëw toog sa télé boobu hmm. dañuy yem nu ne ma ne ko mënulu ma ko dara Doudou moom effectivement mënulu ma ko dara mais yow buggaan mii mi ngi may dégg yow buggaan xaaj ma ko fi ba tàyyi loolu am na buggaan woo ma na ma mais man Doudou Coulibaly mii mais man quest man mais man lan laa ko def Hmm. ma ne ko man man ko du non la mel mënul hmm. mako dara day hmm. sani xeer rek mënul mako dara man mi chaque jour mu ma fi xeer kon man ama grande surprise nga ko ko li ma ne ma bugan on vient de de se parler sama xarit te comme par hasard ba nga jubóo ak bugan sama diggante bugan ci la yakko waaye <laughs> yalla dogal na ne man kuma ma fase saoudi ma di ngeen yalla dogal na ne xam nga nak neexu ba neexul may Diop Fall neexut a bëgg waaye neexut a bañ loolu mbiru yàlla bugus hmm. xam na ne jàpp ci man a gën a wóor ñàkk ma am maa gën a wóor ñàkk ma hmm. ba mu la amee mu ni xaaral ma boole waale si femme bi ndax femme bi hmm. mooy neexal cin nag man nag maay xorom ci cin mi am naa beneen xorom boo xam ne sama benn raq la mi may seetaan kooku surprise du chef laa ko def tey tey moo teye actualité bi dama ko naan kar woo ko ndax moom itam xorom la donc yow bëggus fi ni nii man ak mom fii de <laughs> mas ta wax sa télé bi bu man mako wo ah jël ko nga nga profito ko di kay question mom moom kooku moom lu di di retenir ma bukan mosul wax sa télé bi hmm. mako wo mu rappelé ma nga may jéem a ci télé bi en direct nan ma dula rappelé mu rappelé ma nga profité pose ko question mais bugaan bobu yow mais mais kaay wax la mais tamit bobu tamit bugaan bugaan aussi wokkatu bu dajax gesu la parce que bugaan tamit dem na mbartalu jubóog rakam mais rakam xam nga ni jubóog mom yombut moo hmm. taxit itam bëggoon na ma humilier walé <laughs> def d'une pierre deux coups nah, da hmm. xam nga bëggaan nandita la waye ma xam mom ño bok esprit ño bok may nak ño nah. bok fu nu roté muy wal fajiri nah. motax kérok ndax ne ñun lay seetaan. ba la déggee mu ni occasion. du hmm. ndaw si waaye humilié en même temps. très bien ko woo duudu. mais xam nga man nandite la ci laa ci saa si laa këf bal bi au rebond. moom it moom it ko fi tamit buzz ndax ndax après daf ma ne gis naa vue ya. ko voilà. Hmm. après nak man ak nak, nag man ma ko waxul woon mais tey la la kay wax comme fi lañu waxé lépp la kay wax mm. parce que man xam nga man pat la man ma jeeg bi ci ruq bi man sama pat la yor après nak bugus nak fi ñu toll ni bés bu né man ak bugus ni ñen diw ñu juboo ni man ak mom ni parce que na neex ba neexul nak waye xalé bu xalé bu xale bu ci bëgg dégg lu baax Sen TV ngay sétane daal laal nak public SNTV gudd yi ñu toll mom mm. ah neexul ba neexul mais ku laalu kër dof ya ba hmm. ñun nu ñuy woowee non xam sax man xam sax ñu ngee di woowee xeen na après dañuy jox ut non non nañ leen woo nañ leen woo hmm? téléphone laaj leen ñun nan ngeen ñuy woowee waaw ñun ñun ñuy woowee est que du ah est du kër laa fol bi <laughs> comme que patron